Le secteur touristique est en train de vivre ses pires moments dans la région du Sud. C'est le cas au village artisanal de Zigansor où, depuis plusieurs années, la commercialisation des articles ne marche pas comme souhaité. Le travail ne marche pas, peut-être avec euh, le nouveau gouvernement. Vous savez, avec l'année électorale, surtout en Afrique, tu perds 60 à 80 des touristes leur contrat. Même dans les hôtels, on dira la même chose. 75 de la clientèle ne vient pas résilier sen contrat duñ ñëw. la fermeture des grands hôtels dans le Cap Skirring en une des causes. ñun amuñu tourisme nu mu waré ngir hôtel yu bari dañoo tej Cap Skirring Uh, nous n'avons pas de touristes comme il faut. a des hôtels qui ont fermé au Cap Sikri. Trois grands hôtels ont fermé porte depuis plusieurs années. Cela est un problème. Ici aussi, au village artisanal, la saison des pluies, nous sommes très fatigués. À chaque fois, on les voit prendre des mesures pour réfectionner ça, mais après, on ne les voit plus. Il faut qu'on nous aide surtout sur le côté euh, touristique. C'est des problèmes, c'est des problèmes. D'où leur appel à l'endroit du nouveau président Bassirou faille pour éradiquer ce fléau. Nous voulons un accès au créneau de financement parce que le taux de remboursabilité est élevé, payé à 7 ou 8 C'est trop lourd pour nous qu'on soit renseigné tôt. Des fois, où les expositions à l'étranger avoir beaucoup de touristes est une politique touristique convenable aux artisans. L'amélioration du secteur touristique au Sénégal reste une priorité. C'est les artisans du village artisanal des Igansor, ces derniers, souhaitant de meilleures conditions commission de travail n'ont pas manqué de faire des plaidoyers afin que leurs doléances puissent être définitivement réglées. secteur touristique bu Casamance Mungui et dundu ay jafé jafé surtout bu ñu jëlé ka village artisanal bu Ziguinchor bi nga xamante def ay at pour ñu jaay seen article jafé jafé la ci ñom liggéey bi kañ doxul. liggéey bi xëy na ak gouvernement bu bees bi mais xam nga rek année élection bu amé fi en Afrique fi hmm, justement dans le monde du tourisme hein, tu perds à 80 à 75 des touristes si war a ñëw dañuy résilier seen contrat boo demee ci hôtel bi yëpp laaj leen sax loolu lan lay wax 75 de la clientèle dañuy résilier seen contrat duñ ñëw. loolee li ko waral mooy hôtel yu bëri yi nga xamante ne tëj nañ ko fële ci Cap ñun amuñu tourisme nu mu waree ngir hôtel yu bëri dañoo tëj Cap Skirring boo xoolee euh, hôtel Savane hôtel yu gën a mag ñoo fa tëj ñetti hôtel yu mag mag tëj nañ foofu depuis plusieurs années ñu ngi jooytu ba léegi hôtel yi mënul tijjeeku loolu mooy suñu problème jafe-jafe bu mag lañ am ci côté bon boo duggee village artisanal national ay gis aussi suñu kanting yi dara baaxu ci bu nawet joté ñun dañuy sonn bé c'est pas possible joyantu nañ ko ba sonn sa yu day ñew nat naan ni dañ koy défar té gis suñu dara ba légui problème bi loolu mo légui nak ñu ngi ñaan vraiment gouvernement bu bees bi mu am changement mu jàppale ci bu baaxa baax surtout ci walu tourisme bi loolu moy suñu problème parce que ñi ki sa liggéey fo yëngu bu doxul rek euh, c'est des problèmes c'est des problèmes da ngay am problème bu baaxa baax ci loolu motax ñi woté walu ki nga xamante mo moy président bu bees bi ki di Bassirou Diomaye Faye pour mu jappalé len ñi régler jafé jafé bobu ñu am accès au créneaux de ci parce que de remboursabilité bi dafa élevé boo lebee di fay à hauteur de wala huit pour cent loolu dafa métti ah, am teel am ay renseignement aussi ci foire ak exposition yi nekk bitim réew renseignement yi dinu teel a agsi te ñu dimbali ci touristes yi dooyu daal am politique touristique bu artisans yi mën cee gis seen bopp sukkali li nga xamante ne moom secteur touristique si Sénégal nekk na priorité si ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngu si village artisanal benn liggéey comme ni mu waree